Matthieu saar benn walla ci lindiin di xabaar bu baax bi ci almasi bi yeesu ni ko yàlla jaarale ci Matthieu lii mooy cosaanu yéesu kirist sëtu daawuda sëtu ibraayima ibraayima moo jur isaaxa isaaxa jur yanqooba yanqooba jur yudaa ak i doomi baayam yudaa fares ak saara ci tamar fares esrom mi bàyyu aram aram aminadaab aminadaab nason nason salmon salmon jur ci rahab doom ju tudd bowaas bowaas am ak ruut obed obed jur yeese mi bàyyi buur bi daawuda daawuda moo jur suleymaan ci ki nekkoon jabari uri suleymaan jur robowaam robowaam abiya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 gis nañu ne dafa ëmb ci kàttanu xel mu sell mi jëkkëram nag nekkoon na nit ku jub te bëgg ko wan weer mu nar a moom ci sutura waaye bi muy xalaat ci loolu benn malaakam borom bi daldi ko feeñu ci gént ne ko yow yuusufa sëtu daawuda bul ragale yeggali maryaama sa jabar ndaxte doom ji mu ëmb ci xel mu selli mi la jóge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 waaye àndul ak moom ba kera mu mucc jur doom ju góor mu tudde ko yéesu Matthieu saar ñaar bi nga xamee ni yéesu juddu na ci betleyem ci diiwaanu yude amoon na ay boroom xam-xam ñu jóge penku ñëw yerusalem booba ci jamonoy buur bi erod la woon ñu ne ana buur bi juddul yawut yi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 jubal leen fi muy jaar yax yi nag mi ngi soloon mbubb mu ñu ràbbe karawu giléem takk giñoog der ci ndiggam ay njéréer la doon dunde ak lem noonu ñépp génn jëm ci moom ñi dëkk yerusalem ak diiwaanu yudde ak waa dexu yordaan ñu nangu seeni bàkkaar yax sóob leen ca dexu yordaan noonu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 man ma soxla nga sóob ma ci ndox te yaa ngi ñëw ci man yéesu tontu ko bàyyil noonu ndaxte war na noo mottali lépp lu jub noonu yaxye nangu bi ko yaxee sóobee ca dex ga yéesu génn ca saasa asamaan yi daldi ubbiku te yaxye gis xelum yàlla wàcc ci melo pitax ñëw ci kaw yéesu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 dem dëkk kaparnawum bi féeteek dex ga ci diiwaanu sabilon ak naftali noonu am lañu waxoon jaarale ko ci yonent yàlla esayi bi mu naan yow réewum sabilon ak réewum naftali di yoonu géej gannaaw dexu yurdaan yow galile réewum ñi dul yawut xeet wa nekkoon ci lëndëm gis na leer gu mag ña dëkkoon ca réew ma dee tiim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 ndaxte noonu lañu daan fitnaale yonent yi fi jiitu yéene di xoromus àddina bu xorom si sàppee nan lañu koy delloo cafkaam du jariñati dara lu dul ñu sànni ko ci biti nit ñi dox ci kawam yéena di leeru àddina dëkk bu nekk ci kaw tund du mën a nëbbu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 amoo bopp dinañu la àtte ca kuréelu àttekat ya ku ko wax alku nga dinañu la àtte ci safara boo yóbbu nag sa sarax ca saraxalukaay ba te nga fàttali ko foofa ne sa mbokk am na lu mu la meree na nga fa bàyyi sa sarax ca kanamu saraxalukaay ba nga jëkk a dem juboo ak sa mbokk ba noppi dellu joxe sa sarax gaawalu juboo ak ki lay yóbbu ngeen layoo ji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 bi yeesu waxee loolu ba noppi mbooloo ma daldi waaru ca njàngaleem ndaxte jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni xutbakat amul Matthieu saa juróom bi loolu amee yeesu wàcc ca tund wa te mbooloo mu bari topp ko noonu ku gaana ñëw sukk ci kanamam ne ko sang bi soo ko bëggee man nga maa faj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 ginnaaw loolu taalibe yaxya yi ñëw ci yeesu ne ko lu tax nuy woor nun ak farisiyen yi te say taalibe duñu woor yéesu tontu leen ndax gan yi ñëw ci ceet dina ñu naqarlu dara li fekk boroom ceet gaa ngi ànd ak ñoom waaye bés yaa ngi ñëw yu ñu jële boroom céet gi ci seen biir booba nag dinañu woor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 bu taalibe yemee ak kilifaam demiin doy na jaamit ni sangam ndegam tudde nañu boroom kër gi belsebul asamaag waa kër gi kon nag buleen leen ragal ndaxte amul dara lu nëbbu lu ñu warul a biral mbaa luy kumpa lu ñu warula a siiwal li ma leen wax ci biir lëndëm wax leen ko ci leer li ma leen dey yégle leen ko ci kaw taax yi te bu leen ragal ñu mën a rey yaram te mënuñoo rey ruu waaye ragal leen ki mën a sànk yaram ak ruu ci safara ñaari picc ramatu ndax duñu ko jaay ci dërëm waaye benn ci ñoom du daanu ci suuf te soobul seen bàyyi seen kawari bopp sax waññees na leen kon bu leen ragal dara yéen a gën di raanu ramutu koo xam ni nangu na ma ci kanamu nit ñi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 ndaxte sama kilifteef lewet na te sama yen diisul Matthieu saar fukk ak ñaar amoon na benn bésu noflaay Yeesu jaar ci ay tool yu ñor fekk ay taalibeem xiif ñu daldi fàq ay gub nag di lekk farisiyen ya nag gis ko ne yéesu gisal say taalibe ñu ngi def lu jaaduwul ci bisu noflaay bi noonu Yeesu tontu leen ndax jànguleen la Daawuda defoon ba mu xiifee moom ak ña àndaloon xanaa yéguleen ni mu dugge woon ca kër yàlla ga gis fa mburu ya ñu jebal yàlla mu daldi ko lekk fekk jaaduwul mu lekk ca moom walla ña mu àndaloon saraxalekat rekk ko sañoon a lekk te it ndax jànguleen ci yoonu Musaa ne saraxalekat ya ca kër yàlla ga teraluñu bisu noflaay bi te tooñuñu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 ba du jur njariñ ki jot ci jiwu wi ci suuf su baax si nag mooy ki dégg wax ji te xam ko mu jural ko njariñ muy la ma téeméeri yoon lu ëpp lañu jiwoon muy juróom benn fukk mbaa fanweer noonu yéesu dégtal leen beneen léeb ne leen nguur yàllaa ji kawe ji dafa mel ni nit ku ji jiwu bu baax ci toolam waaye bi nit ñi di nelaw noonam ñëw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 yow mi am ay nopp yéesu teg ca ne nguur yàllaa ji kawe ji dafa mel ni alal ju nëbbu cib tool nit ku ko gis nëbbaat ko xolam sedd ba mu dem jaay li mu am lépp jënd tool ba te it nguuru yàllaa ji kawe ji dafa mel ni jaaykat buy wut per yu rafet am bés mu gis per buy jar gu réy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 ndax kii du doomu minise bi te ndeyam tudd maryaama ndax rakkam yu góor duñu saak yuusufa simon ak yuda te ay rakkam yu jigéen ndax nekkuñu fi ak nun lii lépp nag fu mu ko jële kon ñu daldi koy xeeb noonu yéesu ne leen des na fay daal yonent waaye du ci réewam ak ci këram te yeesu defu fa kéemaan yu bari ndax seen ngëmadi Matthieu ñeent te jamono joojale erod boroom diwaanu galile dégg na tur wa yeesu am noonu mu ne ay surgaam kooku mooy yaxya mi dekki moo tax mu ànd ak kàttanu def ay kéemaan ndaxte erod jàppoon na yaxya yeew ko tëj ndaxte erod takkoon na erodiyaad jabaru filip magam te yax ya daan ko wax jaaduwul nga denc ko erod nag bëgg ko rey waaye dafa ragal nit ñi ci li ñu teg yaxya ab yonent bi ñu ca tegee ab diir nag ñuy màggal bés ba erod juddu woon te doomu erodiyaad ju jigéen di fecc ci biir gañ ñi loolu neex erod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 des na la rey waaye yéen dangeen ne ku wax sa ndey walla sa baay li ngeen war a jariñoo ci man jébbal naa ko yàlla kooku amatul warugaru teral baayam noonu tebbi ngeen kàddug yàlla ndax seen aada yéen ñi naafeq esaayi waxan na bu baax ci kàddug yàlla ci seen mbir bi mu naan xeet wii ñu ngi may teral ci seen gémmiñ waaye seen xool sori na ma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 Matthieu saar juróom ñaar benni fan ginnaaw gi yéesu àndoon na ak Piyeer saak ak Yowaana rakkam yóbbu leen fu wéer ci tund wu kawe lool mu soppeeku fa seen kanam xar kanamam di melax nib jant te ay yéreem weex ni leer naka noonu ñu gis yonent yàlla Musaa ak Iliyaas di waxtaan ak Yeesu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 léegi ñu jébbal doomi nit ki ci loxooy nit ñi dinañu ko rey mu dekk ca ñetteelu fan ba bi ko taalibe yee déggee ñu am naqar lool ginnaaw loolu yeesu ak taalibe yee ñëw kaparnayom bi ñu fa àggee nag laajkat yi warugaru kër yàlla ga ñëw ci piyeer ne ko ndax seen kilifa du fay posetu ñaari daraxma ngir warugar wi piyeer ne leen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 gis ñeneen toog ca penc ma te liggéeyuñu mu ne leen dem leen yéen itam ca tool ba te dinaa leen fay lu jaadu ñu dem ca mu génnaat ci digg bëccëg ak ci tisbaar defaat noonu mu génnati ci takkusaan gis ñeneen di tendeefal mu ne leen lu tax ngeen yendoo tendeefal te liggéeyuwu leen ñu tontu ko kenn jëlunu mu ne leen dem leen yéen ca tool ba bi nga xamee ni timis jot na boroom tool ba ne jawriñ ja wowal liggéeykat yi te fay leen seen bëccëg tàmbali ci ñi mujj a ñëw ba ci ñi fi jëkk noonu ñi mu jël ci tàkkusaan ñëw ku nekk jot posetu denaar yoon gannaaw ga nag ñi mu jëkk a jël ñëw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 ànd ak fukki taalibe yi ak ñaar noonu mu wetoo ak ñoom di leen xamal ci yoon wi lii ñu ngi jëm yerusalem te des na jébbal doomu nit ki saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya dinañu ko àtte teg ko dee jébbal ko ñi dul yawut ngir ñu di ko ñaawal te di ko dóor ay yar ba noppi daaj ko ci bant waaye ci ñetteelu fan ba dina dekki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 du ngir ñu nekk ay surgaam waaye muy seen surga ba joxe bakkanam ngir njotug ñu bari ginnaaw loolu yeesu génn yeriko te mbooloo mu bari topp ko fekk ñaari gumba toog ci wetu yoon wa bi gumba ya déggee ni yeesu di jaar ñu daldi yuuxu ne ko sang bi yow setu daawuda bi yërëm nu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 te bu kenn waxee dara ngeen ne ko boroom bi da leen a soxla kon ca saasa dina leen bàyyi ñu dem yéesu def na noonu ngir lañu waxoon jaarale ko cib yonent am bi mu naan waxal waa siyon seen buur a ngi ñëw ci yéen ku lewet la te war mbaam sëf dig cumbur doomu mbaam noonu taaliba yee dem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 ku barkeel nga ca barab yu gën a kawe nañu ne osaana bi nga xamee ni yéesu dugg na yerusalem dëkk ba bépp yëngutu ne kii moo di kan mboolo ma tontu leen ne kii moo di ci yàlla yéesu bi jóge nasaret ci galile bi loolu amee yéesu dugg ca kër yàlla ga dàq ñépp ña fay jaay ak ña fay jënd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 te dégg xale yu ndaw ya nekk ca kër yàlla ga di wax ci kaw naan osaana yow sëtu bi ñu daldi mer noonu ñu ne yéesu ndax dégg nga li ñuy wax yeesu tontu leen ne waaw dégg naa ko ndax musuleen jàng lii ci mbind mi ci gémmiñu perantal ak ñiy nàmp sàkkal nga sa bopp ay cant bi yeesu waxee loolu mu bàyyi leen génn dëkk ba jëm betani fanaan fa ci suba teel yéesu dellusi ca dëkk ba mu xiif noonu mu seen bu figg ca yoon wa waaye bi mu fa agsee gisu ca dara lu dul ay xob rekk ci kaw loolu yéesu ne ko dootuloo meññ mukk ca saa sa figg ga daldi wow bi nga xamee ni taalibe yi gis nañu loolu ñu waaru naan nan la figg gi daldi wowe ci taxawaay bi noonu yéesu tontu leen ni ci dëgg maa ngi leen koy wax su ngeen gëmee te bañ a werante dingeen def li ma def figg gi rax ca dolli bu ngeen nee tund wële jógal tàbbi ca géej ga dina ko def te lépp lu ngeen laaj ci ñaan bu ngeen ci boolee ngëm dingeen ci jot ginnaaw loolu yéesu dugg ca kër yàlla ga di fa jàngale bi muy jàngale nag saraxalekat yu mag ya ak njiiti xeet wa ñëw ci moom ne ko yëf yi ngay def ci ban sañ-sañ nga koy defe ku la may boobu sañ-sañ yéesu tontu leen ne man itam dinaa leen laaj lenn bu ngeen ma ko waxee kon dinaa leen wax ci ban sañ-sañ laay defe yëf yi la daan def di sóob nit ñi ci ndox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 kon man itam duma leen wax ci ban sañ laay defe yëf yii lu di seen xalaat ci lii kenn nit amoon na ñaari doom am bis mu ñëw ci taaw ba ne ko sama doom demal tey liggéeyi ca sama toolu reseñ taaw bi tontu ko ne maa ngi dem baay waaye demu ca ginnaaw gi baay ba ñëw ca ñaareel ba wax ko noonu mu tontu ko ne bëgguma caa dem waaye ginnaaw loolu xelam soppeeku mu dem ca noonu yéesu laaj leen kan ci ñaari doom yooyu moo def coobareeg baayam ñu ne ñaareel bi kon yeesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax juutikat yi ak jigéen ñi mooykat yi ñoo leen di jëkk dugg ci nguuru yàlla aji kawe ji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 beykat yi def leen noonu ñoom itam mujj mu yónni doomam naan xej nañu weg sama doom waaye bi beykat yi gisee doom ji ñu ni ci seen bopp kii moo war a doon tool bi nanu ko rey moom ndonoom ñu jàpp ko nag génne ko tool bi rey ko noonu yeesu laaj leen bu boroom tool bi ñëwee nag na muy def baykat yi ñu ne ko dina rey reyin wu ñaaw ni ñu soxor ñooñu batale tool bi yeneen baykat yu koy jox wàllam ci jamonoy meññeef kon yeesu ne leen xanaa musuleen jàng lii ci mbind yi doju tabaxkat yi sànni mujj na di doju koñ ci borom bi la loolu jóge te yéemu nanu ci loolu moo tax maa ngi leen koy wax dinañu leen xañ nguuri yàlla dénk ko xeet wuy def ay jëfam ku dal ci doj wii damutoo ku mu dal ci sa kaw rajaxe la bi nga xamee ni saraxalekat yu mag yi ak farisiyen yi dégg nañu léebam yooyu ñu xam ne ñoom lay wax noonu ñu di ko fexee jàpp waaye ragal nañu nit ña ndaxte ñépp teg nañu ko ab yonent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 lu naa samay nag ak samay jur gu duuf lépp sotti na ñëw leen ci reer yi waaye ba tey wuyuwuñu ko ñu dem kenn ka ca toolam kenn ka jaayaan ni ña ca des jàpp surga ya toroxal leen rey leen noonu buur mer daldi yónni ay xarekatam ngir ñu rey boomkat yooyu le lakk seen dëkk ci kaw loolu mu ne surga ya réeri ceet gi noppi na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 buur ne ko sama waay naka nga dugge fii te amuloo mbubbum céet waa ji ne miig noona buur ba ne ay surgaam yeew ko ci tànk yi ak ci loxo yi sànni ko ci biti ci lëndëm gi foofa des na fa jooy te yeeyu ndaxte ñi ñu woo bare nañu waaye ñi ñu tànn barewul booba yi dem gisee ba lu ñu war a def ngir fiir yeesu ci waxam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 wóor leen ma poset bi ñuy feye galag ñu daldi ko jox nag benn posetu denaariyoon yéesu ne leen kan lañu ci def nataalam ak turam ñu tontu ko sesaar noonu mu ne leen jox leen nag sesaar li sesaar moom te jox yàlla li yàlla moom bi nga xamee ni dégg nañu loolu ñu waaru bàyyi ko daldi dem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 te lu jëm ci ndekkiteel ñi dee xanaa mosuleen a jàng la leen yàlla waxoon ne maay yàllaay ibrahima ak yàllaay isaaxa ak yàllaay yanqooba li ciy génn mooy nekku yàllaay ñi dee waaye yàllaay ñiy dund la bi nga xamee ni mbooloo ma dégg nañu loolu ñu waaru ndax li mu jàngale gannaaw gi pharisiens yi yëg nañu ne yey na sadusiyen ya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 na nga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ñaari ndigal yooyu tënk nañu yoonu musaa wépp moom ak wax yonent yi bi farisen yi dajee nag yeesu laaj leen lu ngeen xalaat ci almasi bi kan la nekk sëtam ñu tontu ko daawuda noonu yéesu ne leen lu tax nag daawuda bi muy wax ci kàttanu xelu yàlla mi di ko wooye borom bi ne borom bi wax na sama borom toogal ci sama ndejoor ba kera may daaneel say noon ci sa kanam ginnaaw daawuda nag wooye na ko borom bi nu muy nekke sëtam ci kaw loolu kenn mënu ko tontu genn kàddu te li dale ci bés booba kenn ñimeetu ko laaj dara Matthieu ñett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 yéen njiit yu gumba yi dingeen torox yéen a ngi wax ne ku giñe kër yàlla gi ngiñ li duggul waaye ku giñ ci wurusu kër yàlla gi dugg na yéen ñi dof te gumba lan moo gën a màgg wurus wi walla kër yàlla gi tax wurus yi sel dangeen ne ku giñe saraxalukaay bi ci kër yàlla gi ngiñ li duggul waaye ku giñ ci sarax si ci kawam dugg na gumba yi lan moo gën a màgg sarax si walla saraxalukaay bi tax sarax si sel ku giñe saraxalukaay bi giñ nga ci saraxalukaay bi ak li ci kawam lépp ku giñe kër yàlla gi giñ nga ci kër yàlla gi ak ki ci dëkk ku giñ ci asamaan giñ nga ci jalu buur yàlla ak ki ci toog yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naafeq yi dingeen torox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 ndaxte yéen a ngi setal bitib kaas bi ak ndab li waaye ci biir dafa fees ak càcc ak ëppal farisiyen yi gumba yi jëkk leen a biir kaas bi ak ndab li ngir biti bi itam seet yéen xutbakat yi ak farisiyen yi feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi mel ni bàmmeel yu ñuy weexal ci biti am na nañu melawu rafet waaye ci biir dañoo fees ak yax yi ñi dee ak tilim ju nekk yéen itam ci sël dangeen mel ni ñu jub waaye ci seen biir dangeen fees ak naafeq ak lu bon yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naafeq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi tabax xabru yonent yi tey rafetal bàmmeel yi ñu jub ñi te yéen a ngi wax ne bu nu fekkee woon sunu jamonoy maam du nu ànd ak ñoom ci tur deretu yonent yi seede ngeen nii ne yey ngeen seen bopp te yéenay doom yi ñi doon rey yonent yi di aw seeni tànki baay ba yeesi leen sax yéen ñi mel ni ay jaan te fees ak dangar niico naka ngeen di mucce mbugelu safara moo tax maa ngi leen di yónnee ay yonent ak ay boroom xam-xam ak ay xutbakat ñen ñi dingeen leen rey te daaj leen ci bant ñeneen ñi dingeen leen dóor ay yar ci seeni jàngu di leen fitnaal ci dëkkoo dëkk noonu deretu ñi jub di ñu tuur jépp ci àddina dina xëppu ci seen kaw li dale ci deretu abel mi jub ba ci deretu sakare doomu baraki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 buleen kenn nax ndaxte ñu bari ñu ñëw ci sama tur ne maa di kirist te dinañu nax ñu bari dingeen dégg ay xare ak coowi xare wattu leen bu leen ci tiit ndaxte loolu war naa am waaye booba mujj jamono ji jotagul xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew xeex ak meneen réew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 ci dëgg maa ngi leen koy wax nit ci jamono jii ñu wéy te loolu lépp amul asamaan ak suuf dinañu wéy waaye samay wax du wéy mukk waaye bés booba walla waxtu wa kenn xamul kañ lay doon du malaaka yi ci kaw du sax man doom ji waaye baay bi rekk moo ko xam ni bési nooyen ya noonu lay mel bu doom doomi nit ki di ñëw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 gàttandu ji boroom seet ba fekk juróom ca jànq ya di ñu am xel juróom ya ca des ñàkk xel ñi ñàkk xel nag fab nañu seeni làmp waaye fabaale wuñu diwlin waaye ñi am xel ñoom fab nañu seeni làmp fabaale diwlin ciy njaq ni boroom seet bi yeexee ñëw nag ñépp gëmmentu bay nelaw noonu ci xaaju guddi baat jib ne borom seet baa ngi génn leen gatandu ko bi ko janq ya déggee ñu jóg defar seeni làmp ñi ñàkk xel wax ñi am xel may leenu ci seen diwlin ndaxte suñuy làmp ñu ngi bëgg a fey waaye ñi am xel tontu leen ne li ñu yor du doy ngir nun ak yéen te ngeen a dem ca jaaykat ya jënd bi nga xamee ne dem nañu jëndi boroom seet ba agsi ñi aman diwlin ci seeni làmp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 gas pax fa xaalisu njaatigeem gannaaw diir bu yàgg njaatigeem surga ya dellusi daldi leen laaj alalam noonu ki jot juróomi million ya jege si indi yeneen juróom naan kilifa gi dénk nga ma juróomi million seetal amee naa ci yeneen juróom njaatigeem tontu ko def nga lu baax surga bu baax nga te takku gannaaw takku nga ci lu tuuti dinaa la dénk lu bari kaay bokk ci sama mbég naka noona ki jot ñaari million it jegeñ si ne ko kilifa gi dénk nga ma ñaari million seetal ame naa ci yeneen ñaar njaatigeem ne ko def nga lu baax surga bu baax nga te takku ginnaaw takku nga ci lu tuuti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 li nga amas néew sax dinañu ko nangu te sànni leen surga bu amul njariñ bi ci biti ci lëndëm gi foofa des na fa jooy te yeeyu boo xamee ne doomu nit ki mi ngi ñëw ci ndamam ànd ak malaaka yépp booba dina falu ni buur toog ci jalam bu soloo ndam bu boobaa des na dajale xeeti àddina yépp ci kanamam te dina leen xajale ni sàmm di xajale xar yi ak béy yi mu teg xar yi ci ndeyjooram béy yi ci càmmoñam noonu buur bi dina wax ñi féete ndeyjoor agsi leen yéen ñi sama baay barkeel jël leen nguur gi ñu leen waajal li dale ci njalbeenug àddina ndaxte xiifoon naa ngeen jox ma ma lekk te mar ngeen jox ma manaan naan nekkoon naab ab doxandéem ngeen fat ma te rafle ngeen wodd ma woppoon na ngeen seetsi ma te ñu tëj ma ngeen ñëw fi man ci kaw loolu ñu jub dinañu tontu ne borom bi kañ lañu la gisoon nga xiif nu jox la nga lekk mbaa nga mar nu jox la nga naan kañ lanu la gisoon nga nekk ab doxandéem nu fat la mbaa nga rafle nu wodd la kañ lanu la gisoon nga wopp mbaa ñu tëj la nu ñëw ci yow noonu buur bi dina leen tontu ne ci dëgg maa ngi leen koy wax saa yu ngeen defalee loolu kenn ki gën a ndaw ci sama mbokk yii man ngeen ko defal gannaaw loolu dina wax ni ci càmmoñam sori leen ma yéen ñaalku te dem ci safara su dul fey si ñu sàkkal seytaane ak ay malaakaam ndaxte xiifoon naa waaye joxu leen ma ma lekk te mar waaye joxu leen ma manaan nekkoon naa ab doxandéem waaye fatuleen ma te rafle waaye weddu leen ma woppoon naa te ñu tëj ma waaye seetsiwu leen ma ci kaw loolu dinañu tontu ne borom bi kañ lanu la gisoon nga xiif mbaa nga mar nga nekk ab doxandéem mbaa rafle nga wopp mbaa ñu tëj la te toppatoowuñu la kon dina leen tontu ne ci dëgg maa ngi leen koy wax saa su ngeen ko defalul kenn ci ñi gën a ndaw mban ngeen ko defalul noonu ñii dinañu soobu ci mbugal gu dul jeex waaye ñi dinañu tàbbi ci dund gu jeex Matthieu saar ñaar bi nga xamee ni yéesu wax na loolu ba noppi mu ne taalibeem ya xam ngeen ni ñaari fana des ci màggalu bésu jéggi ba te dinañu wor doomu nit ki daaj ko ci bant booba nag saraxalekat yu mag ya ak njiitu xeet wa dajaloo ci kër gu réy gu saraxalekat bu mag ba tudd kayif ñu daldi gise ba xam lu ñu mën a fexe ba jàpp yeesu reylu ko waaye ñu ne bu mu doon ci bisu màggal bi ngir yëngu-yëngu bañ a am ci nit ñi bi nga xamee ni yeesu nekkoon na dëkku betani ci kër simon ma gaana woon jën jigéen ñëw ci moom yor njaq lu ñu yette doj wu ñuy wax albaataar njaq la def laj koloñ bu jar lu baree bari noonu bi yeesu toogee di lekk jigéen ji tuur ko ci boppu yéesu waaye bi ko taalibe ya gisee ñu daldi mer ne yàq gi lu muy jariñ maneesoon na ko jaay ci lu bari jox xaalis bi miskin yi yéesu nag xam lañu wax mu ne leen jigéen ji defal na ma jëf ju rafet lu tax ngeen di ko sonal miskin yaa ngeeg yéen bis bu nekk waaye du ngeen ma gis ba faw kii ci li mu tuur laj ko leen bii ci sama yaram def na ko ngir waajal sama rob ci dëgg maa ngi leen koy wax fépp fu ñuy yéene xabaar bu baax bi ci àddina sépp dinañu fa fàttali it li jigéen jii def ca waxtu woowu kenn ci fukki taalibe ak ñaar ku tudd yuda iskariyo dem ci saraxalekat yu mag ya ne leen lan ngeen ma mën a jox ngir ma jébbal leen yéesu noonu saraxalekat ya daldi ko waññeel fanweeri poseti estateer li dale ca saa soosa nag yu daldi fexe jamono jumu leen mën a jébbal yéesu bés bu jëkk ca màggal gañuy wax mburu ya amul lawiir taalibe yi ñëw ci yéesu ne ko foo bëgg nu defaral la reeru màggal lu jéggi ba yeesu leen dem leen ca dëkk ba jëm ca diw ngeen ne ko kilifa gi nee na sama jamono jege na ci sa kër laay màggal si xewu jéggi ba man ak samay taalibe noonu taalibe yi defar reeru jéggi ba ne leen yéesu waxe woon bi nga xamee ne timis jot na yeesu toog di lekk moom ak fukki taalibe yi ak ñaar ñuy lekk mu ni leen ci dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen dina ma wor taalibe ya am naqaru xol bu réy ku nekk daldi ne ko mbaa du man borom bi yéesu tontu leen ne ki dugal loxoom ak man ci ndab li kooku moo may wor doomu nit ki mu ngi dem ni ñu ko waxe ci mbind mi waaye ki koy wor dina torox bañoon a juddu moo gënoon ci moom yudaa mi ko nara laaj ko mbaa du man kilifa gi yeesu ne ko wax nga ko noonu bi ñuy lekk yéesu jël mburu sant yàlla damm ko jox ko taalibe ya mu ne leen jël leen lekk lii sama yaram la ginnaaw loolu mu jël kaas sant yàlla jox leen ko mu ne leen yéen ñépp naan leen ci ndaxte lii sama deret la ji fas kóllëre gi te mu tuuru ngir ñu bari jot mbalug bàkkaar yi maa ngi leen di wax dootuma naan ginnaaw si tey ndoxum reseñ mii ba kere may naan ak yéen ndoxum reseñ mu bees ci sama nguuru baay ginnaaw loolu ñuy woy yàlla ba noppi génn dem ca tundu olivier booba yeesu ne leen yéen ñépp dingeen ma dàggeeku ci guddi gi ndaxte bind nañu dinaa dóor sàmm bi xari jur gi tasaaroo waaye bu ma dekkee dinaa leen jiitu ji galile piyeer nag daldi jël kàddu gi naan bu la ñépp dàggeekoo man duma la dàggeeku mukk yéesu ne ko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 nelaw leen léegi te noppalu waxtu wu ñu ma war a jébbalee ci loxoy bàkkaarkat yi jege na jóg leen nu dem xool leen ki may war a ngi nii di ñëw bi muy wax loolu nag yu daami bokkoon ca fukki taalibe ya ak ñaar te naroon koo wóor agsi ànd ak mbooloo mu bari jóge ci saraxalekat yu mag ya ak ca njiiti xeet wa te gànnaayoo jaasi ak yet fekk yudaa moomu joxoon na leen tegtal ne leen ki may foon moom la jàpp leen ko mu daldi ñëw ci yéesu nag ne ko salaamaaleykum kilifa gi daldi ko fóon bu tàng yeesu tontu ko sama xarit xam naa lu tax nga ñëw noonu ñu daldi jege si song ko jàpp ko ca saasa kenn ci ñi ànd ak yeesu ci jaaseem dóor surgaab saraxalekat bu mag ba nopp ba dagg waaye yéesu ne ko roofal sa jaasi ci mbaram ndaxte ku bocc jaasi jaasi moo lay rey xanaa xamuloo ni mën naa laaj sama baay te dina ma may ci taxawaay bi mbooloom malaaka mu xel dajul waaye su ma ko defoon nan la mbind mi mën a ame ndaxte mbind mi nee na nii la war a amee booba yéesu ne mbooloo mi jóg ngeen ngir jàpp ma gànnaayoo jaasi ak yet mel ni ñuy topp sàcc moona daanaa toog bés bu nekk ca kër yàlla ga di jàngale te jàppu leen ma waaye li lépp xew na ngir amal mbind yonent yi ci kaw loolu taalibe yépp dudd ko daw ñu jàppoon yeesu ko ca kër saraxarekat bu mag ba fa xutbakat ya ak njiit ya daje piyeer topp ko fu sori ba ci ëttu saraxalekat bu mag ba mu dugg toog ak surga ya ngir seet nu mbir may mujje noonu saraxalekat yu mag ya ak kuréelu àttekat ya di seet naa feq bu mën a seede ci yéesu ba nu man koo rey waaye mënuñu koo am teewul ñu bari ñëwoon nañu di seede lu dul dëgg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 ña fa taxawoon ñëw ci piyeer ne ko ci lu wóor ne yow itam bokk nga ci ñoom ndaxte sa waxin feeñal na la bi mu ko déggee piyeer daldi giñ ak di waat ne xawma nit kooku te ci taxawaay ginaar daldi sab noonu piyeer fàttaliku la yéesu waxoon ne balaa ginaar sab dinga ma weddi ñetti yoon mu daldi génn di jooy jooy metti Matthieu saar juróom ñaar ci suba teel saraxalekat yu mag yépp ak njiitu xeet wa gise ngir fexe rey lu yeesu ñu yeew ko yóbbu ko jëbal ko pilaat boroom réew ma bi nga xamee ne yudaa mi waroon yéesu gis na ne daan nañu ko mu am naqaru xol mu dem nag ca saraxalekat yu mag ya ak njiit ya delloo leen fanweeri poset yu xaalis ne leen am naa bàkkaar ci li wóor nit ku tooñul ngir ñu rey ko ñu tontu ko lu ci sunu yoon loolu yaa ko yëg noonu yudaa sànni xaalis ba ca kër yàlla ga jóge fa dem takk buum ci baatam xaru saraxalekat yu mag ya nag fab xaalis ba naan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 xanaa dégguloo lépp li ñu la jiiñ waaye yeesu tontuwu ko ci dara ba tax boroom réew ma waaru lool ca màggal gu nekk nag boroom réew ma daan may mbooloo ma ñu tànn kenn ca ña ñu tëjoon mu daldi leen ko bàyyil fekk booba amoon nañu ku ñu tëjoon ku siiw te tudd barabaas bi nga xamee ne daje nañu nag pilaat laaj leen kan ngeen bëgg ma bàyyi ko barabaas walla yéesu mi ñuy wax kirist ndaxte xamoon na ni kiñaan rekk a taxoon ñu jébbal ko ko te it bi mu toogee sax ca jalu attekaay ba jabaram yónnee ci moom ne ko bul dugg ci yëfi jub kooku ndaxte tey gént naa ci moom te sonn naa ci lool waaye saraxalekat yu mag yi ak njiit ya xiir mbooloo ma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 teg bantu xat ci loxol ndeyjooram sukk ci kanamam di ko ñaawal ne ko nuyu nan la yow buuru yawut yi ba noppi ñu daldi tifli ci kawam fa bantu xat ba dóor ko ci boppam bi ñu ko ñaawalee ba noppi ñu summi mbubbum xarekat ma solalaat ko ay yéreem yóbbu ko ngir daaj ko ci bant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 ndaxte nee na maay doomu yàlla taskati réew ma it ya ñu daajale ak moom di ko xas noonule la tàmbalee digg bëccëg ba ci tisbaar réew mépp lëndëm noonu ci wetu ñetti waxtu yeesu daldi woote kàddu gu dëgër naan eli eli lama sabaktaani lii tekki sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma ñenn ña ca ña fa taxaw nag bi ñu ko déggee ñu ne mu ngi woo yonent yàlla Iliyaas ca saasa kenn ci ñoom daw jël aw sagar capp ko ci bineegar mu teg ko ci kaw bant jox ko ko mu muucu waaye ña ca des ne bàyyil nu seet ba xam Iliyaas dina ñëw musal ko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 nga santaane ñu wottu bàmmeel ba ba am ñetti fan ngir bañ taalibeem yi ñëw sàcc néew ba te yégle ne dekki na bu ko defee ndax bu mujj boobu dina yées bu jëkk ba pilaat tontu leen am leen ay wattukat a ngi nii dem leen wattu ji ko ni ngeen ma ne noonu ñu dem tëj bàmmeel ba bu wóor ñu tey ca doj wa màndarga teg fa wattukat ya